asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen a ngi si géejawaay info point ñu ngi stade Amadou Barry donc di leen présenter benn émission boo xam ne ñu ngi ko tuddee en route vers la finale géejawaay info moo leen ko indil pour euh, def euh, finale yëpp waxtaan ak ñi nga xam ne ñu ngi dem finale équipe yi nga xam ne ñu ngi dem finale ñu xool nan la ñuy préparer seen finale ak aussi euh, lan lañ lan lañ lan la ñuy programmer si yooyu daal donc tey fii nii ñu ngi fekk waa Mbolo finale zone 4. ak waa Goney tey ñoo fi waroon toog mais malheureusement aussi ñoom seen information bi dañ ko jàllale jàllalewul carrément ba nga xam ne mun nañ fi indi benn représentant donc ñoom tey euh, dañoo absenté donc xam naa ne ba jimmi jamono rek dinañ leen jël daal parce que Guédiawaye info lépp li mu waroon def def na ko contacté nañu mu waroon contacté mais malheureusement l' information donc dafa jaaru fi mu war a jaar ba ñoom ñu indi fi benn benn benn benn représentant donc si kaw loolu dañuy dañuy jàll si émission bi rek en route vers la finale ak waa mbooloo mm. salaamaaleykum ñu ngi toog ak ki ñuy wax euh, Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye muy vice président wu mbooloo waa sëriñ mun nga ñu wax euh, gannaaw ba nga présenté woo donc euh, seen nga defal ñu benn résumé boo xam ne ba nan ngeen def ba yegg si fii final ak lan moo doon difficulté yi ngeen jànkonteel ak yan ak yi daal ngeen am ba yegg si fii final bon alaykoum euh, maa ngi nuyu ñëpp euh, di nuyu wa Guédiawaye info di rafetlu bu baax a baax euh, initiative bi ak liggéey bi nga xamné mo ngi koy def à travers les médias au niveau de la ville de Guédiawaye mu doon luñ gis lu ñuy rafetlu di len ci jaajëfal bu baax a baax Mbolo man maay le vice président chargé de la vie des commissions et tey euh, ma ñëw fi représenté fi équipe bi yëpp yàlla dogal ren euh, ñu atteindre yenn si suñu objectif mu nekk finalu zone 4 comme ni nga ko yàgg defee ay sa mbooloo euh, récemment moo mujjee doon champion départemental si sunu zone muy la zone 4 nawetaan nag championnat la championnat du yomb pour nga ñëw ba dem ba final Eh, te ku nekk xam nga ay sa mbooloo eh, ni ñu koy xaaree ak ren recrutement bi nga xam ne eh, la commission sportive def na ko ñu leen di félicité te bu Diop ak Njaxat ñaa ñoo ko jiite woon la commission sportive ñu def recrutement bu am solo avec le président Modou Faye jàpp si bu baax a baax a baax ba nga xam ne tey joueurs yi ñu si jëloon li ñu si doon xaar si ñoom mooy lii tey équipe bi finaalu ndax final lu koñ bi yëpp doom xaar na joué euh, nañ euh, match trois quatre matchs de poule quatre matchs yi suñ premier match dañoo niil ak màgg baax 0-0 deuxième match ñu ñëw doo njaboot gi euh, un 0 troisième match ñu ñëw dex gi nga xam ne moom lañu éliminé moom lay gonay tey éliminer demi-finale doo ñu 2-1 mu nekk match bu ñu bu metti woon daanaka moo yee koñ bi ndax ba ñu dex gi dóoree moom gars yi dañu ne non lii moom dootuñu ko seraanati te équipe bi toll na foo xam ne warut a toogee premier tour ak recrutement yu mu def bon ñu ne ñëpp jug ñu am gonay tey sunu quatrième match mu nekkoon match qualification yàlla dogal ñu ñëw niil def match niil 0-0 nga te langoon nag ndax boo bañ niile yawee avait un autre match boo xam ne moo woon am muy entre njaboot gi ak màgg baax te ñoom ñaar ñëpp ku si doo da ngay te ñun benn résultat rek moo ñu si arrangé woon muy match niil fa ñoom ñaar nous 1 euh, ñun ñu qualifié dernière euh, position avons en dernière position am euh, Mom sa Nous nga ko Nous la quart de finale 1-0 nous avons nañ demi finale équipe finale bu demi finale nous nous disqualifié muy que ak avons seen match nga incident yi si suspendu bañ suspendre disqualifié diisoo yaakaar naa ne loolu tax ñu dem final directement am njaboot gi loolu mooy parcours bi nga xam ne ren euh, ay sa mbooloo def na ko. waaw ginnaaw bi nga waxee parcours bi Ndiaye donc ñu gis ne euh, commencé ngeen avec difficulté mm. malgré que comme li nga wax sànq mm. malgré que recrutement bu mag bi ngeen def. Mm. commencé ngeen avec difficulté. donc loolu nan nga ko mën a expliquer euh, les internautes. bon loolu ni ñu ko mën a ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan ak di ñu déglu euh, à travers euh, Guédiawaye info dañ leen di wax naan euh, équipe bi ñuy xaat ndax nawetaan ñëpp xam nañ ne mercato am dafa metti Euh, do a ay équipe yi nga xamné euh, sa sa ay équipe voisine ñoo ñoo euh, li ñi xaar équipe bi do xolé ay sa premier match am ñun dañ duñ bu baax baax dañ dañ ñu pour nga day day ndax dañuy ñëw taxaw seen dañ suñu la sax difficulté ak suñu attaque tamit des difficultés pour marquer des buts parce que en phase de poule on a marqué que deux buts et lolu mo nekkoon li nga xam mo ñu gënoon a moo ñu gënoon sonal mais on avait une équipe très compétitive et équipe bu joueuse et avec des joueurs de très grande qualité. waaw gis nañ lolu légui mm-hmm. dem ngeen ba génn ñëw ñu gis na dañoo disqualifier ñaari équipe mm-hmm. moo tax euh, seen match suñu def ko directement demi-finale ngeen ñëw. Euh, rey équipe boo xam ne gagné mm-hmm. équipe bu nga xam ne ñëpp ñu ngi ko doon xaar par mm-hmm. rapport ak jeu bu mu doon produire ak lépp mm-hmm. léegi dem ngeen final yéen a ngi tase Gonay tey Gonay tey nga xam ne tase woon ngeen premier tour ngeen niil donc final boobu nan ngeen koy préparé ak sa waa koñ nan lañ koy dundee ak aussi yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si staff bi nan ngeen préparé final boobu bon final moom euh, fête la te dañuy santaat yàlla bu baax bañ dogalee ndax bañu ñuy démarré treize équipes ñoo démarré ci zone bi yalla dogal ñun ñu bokk ci nga xamné ñoo final ci ñaari équipe yi dañ ci sant yalla bu baax di gërëm ñëpp di gërëm le président le comité le bureau le comité directeur les supporters les euh, les staff techniques et les joueurs ndax kenn amul seen fay ñoo xam ne chaque fois ñun li ñu doon xaar si ñoom gis nañ ko joxe nañ bu baax a baax euh, ñun euh, yaakaar naa ne moom sa bopp ñëpp ko doon xaar mais ku xooloon suñu équipe xam ne ñun war nañ mën a finalu li des mooy final nag dañ koy préparer dans la sérénité préparer ko dans de très bonnes conditions surtout les joueurs ñu mettre leen dans de très bonnes conditions préparer fépp fu nga xam ne fa la ñuy waajalee final ñu waajal ko ndax ñun suñu moo doon mooy fu mun na fa dem fu xam na fa dem ndam rek incha allah. waaw loolu ni ngay préparer final bi ñu gis. taje Gonay tey mm. par exemple mooy seen adversaire mm. donc taje woon ngeen premier tour yi mm. ngeen niil te gis nañ ne Gonay tey euh, éliminé na ay équipes yu nga xam na ay équipes yu mag lañ ku si mel nag bokk jom ñu gis ne aussi éliminé na def gi aussi def gi nga xam ne ñëpp ñu ngi ko doon xaar tey te ren tamit dañoo motivé woon donc yéen si plan boobu par rapport ak seen adversaire nan ngeen préparé match boobu wala da ngeen koy préparé comme seen match premier Euh, am na particularité euh, si préparation bi ndax euh, li final la comme une finale moom ça se joue pas mais ça se gagne yaakaar naa ne loolu ñun apprendre nañ bu baax a baax a baax su suñu dernier finale bi nga xam ne moom lañ jee en 2014 ak njaboot gi nga xam ne dañoo dugal trois billets yalla dogal ne arbitre bi accordé wu ko finalement euh, ñu dugal ñu encaissé benn bi 83e minute xam nga lool da metti hmm. kon motax final da ngay préparer mettre des joueurs dans de très bonnes conditions comme ni ko waxé sank euh, avoir aussi un plan un plan technique bi nga xamné ne gagner mooy gagné match euh, le le coach actuellement et ses adjoints ñoo ngi siy def liggéey bu am solo so démé entraînement di nga gis jori am motivation euh, gone tay sétane nañ ko plusieurs fois xamnañ avons ay faiblesse am nous avons ay force am te loolu pour ñoo préparer préparé pour voir ko nous pas contrer équipe parce que euh, c'est une très grande équipe lay sa goney et on habitude aussi di finaliser de grand match Et naa ne loolu moom euh, ñoo dans tous les plans pour que nous may ñu victoire finale bi

muy joueur bi nga joueur yi nga xam ne ñoo participé yëpp si ren am licence mbooloo bañ finaaloo xale yeeg mag ñeeg ñëpp a ànd yor ay asiko ku nekk ñi dem sa buntu di la di la wayal naan la jërëjëf euh, loolu yaakaar naa ne loolu rek euh, motivation de plus pour les joueurs ndax joueurs yi euh, yaakaar nañu lu bari par quatre-vingt mun nañ la ak plus de quatre-vingt pour cent ñoom ñoo ñoo ñoo tax final bi am supporters yi ñoo ngi koy waajal bu baax a baax a baax yaakaar naa ne. Euh, dans les jours à venir euh, dinañ dinañ dinañ def benn marche woo xam ne euh, ce sera très pacifique dugg si zone yi zone suñu biir zone yëpp wër ko pour wan leen ne ay sa mbooloo amuñu xamuñu xeex xamuñu xuloo te football seen cosaan la foofu si ay sa mbooloo muy kàcce marché Ndiarème te bien que dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ mobiliser nag yaakaar naa ne bisu final bi moom euh, ñoo ngi koy wax ñi nga xam ne dëkkuñu si biir zone bi waaye ñi nga xam ne ñoo jóge faneen ku yéex fii 11h di nga fekk waa mbooloo jël place yëpp stade bi yëpp dina doon vert zone. waaw loolu mu doon message fort bu message de mobilisation bu Serigne Ndiaye donc euh, Serigne euh, ku wax final aussi wax en route vers la finale mooy émission bi ñuy mm. def. donc mën nga wax lan mooy sa message bi nga xam ne hmm. yaa ngi koy adressé aux population de Guédiawaye hmm. particulièrement ñaari équipe yi nga xam ne ñooy finalu hmm. lan mooy sa message message waa mbooloo message staff mbooloo en tant que vice président de mbooloo euh, message bi ngay lancé ñi nga xam ne les amoureux du ballon rond yaakaar naa ne une finale c'est une fête et finale bi nga xam ne mooy mbooloo euh, gonay tey c'est la fête de la jeunesse

Euh, fair play ak sportivité amu fi place ñaar yooyu rek lañ fi woo ñëpp ñu xam ne une finale c'est une fête et c'est la fête de la jeunesse euh, ñu profité aussi yaakaar naa ne bis boobu dina dina rafet euh, ku ñëw en couleur di nga gis les deux ASC ñëpp solu ñëw stade nga xam ne géejuwaay yaakaar naa ne réewum jàmm la géejawaay euh, bokk na si dëkk yi nga xam ne moo gën a moo gën a rafet si wàllu sport ndax doo fi gisee stade Amadou Barry gisaat laneen ak laneen teena njaareem lépp a ngi fi nga xam ne kon géejawaay euh, mënuñ final ak waa mm. zone 4 bi nga xam ne ñu ngi programme seen mm. final entre euh, mbooloo ak mm. Gonay Tay waa Gonay Tay waroon fi teew mais dañoo am contre temps après dinañ leen jël ñoom ñu wax aussi nan la ñuy préparé seen final donc loolu la leen Géejawaay info indil woon tey jii nii di jàkkaarloog ñaari équipe yi comme nañ koy defee si Géejawaay yëpp mm-hmm. dinañ ñëw aussi si yeneen zone yi aussi tey jii nii mm-hmm. ñu ngi woon euh, au stade Amadou Barry Géejawaay info en route vers la finale ba beneen yoon en route vers la finale jaajëf